one city. Yeah, because so when we get when we were getting married, me and him we lived separate city. So um, how did you said, do you mind so telling I, uh, how you know him? Is it arranged marriage or? Um, I know he, he he was a family friend. Mm -hmm. So basically, it's like you when you get married, you see you're not seen as a someone who also have a need, who's human being, who needed care, who needed to be loved, who needed to be shown affection, you only be seeing someone. So constantly he will say like, um, I, you're have to do cooking and cleaning and like he will always talk about what he wants. It's never about what about me. I'm also human being and I have needs. you know. Oh. And at the same time, was he married to somebody else or? Not that I knew at the moment. Mm-hmm. So at the same time. And you were you married. Know, when you had before, FGM. You were married before, and you, and then you yeah, married yeah. to him now. Yeah, you were married to him now. Mm. Yeah, this is my second time. Mm-hmm. A lot of them also don't value women that are married already. I don't know if your community is like that. Do they do that too? Yeah, they, they he will tell me like he will always say like, Do you know like you the first divorcee virgin that divorcee um, baby uh, who have a kid, single mother that I married. Before I only used to marry um, virgin. I'm like, and he was doing do it want? nothing. That's mean he married a lot of women. I'm like, what do you want? You want cookies? Like you just want like, Oscar? Just like you are lucky. He was just talking like you are lucky that you have him. Yeah. Like me and him, if we if we disagree on certain thing, he's like, you should be you should be honored that you know like you have me, I married you since you're you are a single divorcee mother? Oh my God. Okay, now let me explain this little bit in my language and then you can continue. Tapotelin, guys, keep following her page and she have a GoFundMe link and you can please donate to her. Keep donating her now even. Tapotelin to say do donate link ki tangen follow ko fahame GoFundMe link si kaw eh, TikTok am support ko. Faham lu ko ko dal man na dal kone. ndeysaan moo tax mu gis ma xam na ne jógee huma seen dëkk sax waaye mu ñëw ci man di déglu bi mu déggee may wax mbiri xaraf ndeysaan taxaw leen ma waxal leen li ko dal tapoté leen de danaa leen wax li ko dal mooy jigéen ji duggoon fi démb te li muy wax dëgg la mu ko posté si TikTok am bi fa dem hôpital sax di posté mboom ne ca hôpital ba posté yëpp fa hëmb fi ne nii ba diis te docteur yi wax nañ ko ne mën naa mu gaaw a doom ndax doomam ji biiram bi mën naa stress la wala xaw ma ndax lan lan lan xaraf bi pulo stress waaye I don't think is xaraf bi maybe stress waaye danaa ko laaj lool waaye wax na ko ci vidéo bi bi bi mu xamee ci TikTok am bi ne fañ ko wax ne fay gaaw a xam doom maanaam biir bu du hegg time bi mu war a hegg taxawal ma waxal la gi nga jigéen ji fa sëy ba tas ko xarafaloon mu ne ba mu xamee juróom benni at seen xaraf yi def noonu ñaw ko fatt ko fatt ñaw yëpp ba mu des bën bën bu ndaw xàmmee ngeen ko dee moo fi ne tàppote leen rek léegi taggi nga nag waa Somalia nag ñoo gën a bon ci jigéen nag ba raw xàddina juróom-ñaar su ngeen ko xamut seen góor ñi faale wuñ jigéen fa ñuy jël jigéen ja ñaw ko te góor ñi ñoo koy wax waa na ko démb mu ne bañ doon campagne pour lool bàyyi ñu laaj góor ñi ne ngeen a bugg jigéen juñ juñ deful noonu wala jigéen ju xamee jigéen yaa xam gi correct ñu ne ko jigéen juñ def noonu lañ bugg ndax su ngeen ko deful noonu jigéen ji du nekk vagin buñ ko takkee léegi jigéen ju nekk vagin te fekk yaa ngi koy nangam ci gannaaw bi ko góor gi ko takk nii nangam ci gannaaw lañ jotee wax na ko ca vidéo ba waa xeggagul foofu fa ne mukk dana ko nangam ci gannaaw te mu ngi biir taxawal ma waxal leen nu mu demee rek tapote leen rek te séddoo léegi ba sëyem ba tasee fekk mu ko xam xama benn doom xaw ma ñaar danaa ko laaj lool kii gis ko kii mu ne fa ko xam family friend maanaam fa xamanteeg famille en xariti famille la bi la daal wala dara you know fa mooy famili friend mhm. léegi kuy kii takk ko waaye mu nga Amérique góor gi mu nga Amérique waaye newuñ ci benn dëkk bam ko defee góor gi daal di koy takk ñun ñëpp benn lañ gisoo ko mu ngi rafet ba mu ngi mel ni jigéeni sénégalais wala gambien ñun ñëpp benn lañ léegi mu daal di ñëw sëyeeg góor ga ba seye sëyeeg góor ga mu ne góor ga koy wax ne ko yow yaay yow yaay pëlëm wiir yow yay yow yaa njëkk ci jigéen joxane fa sey ba tas ma takk ko ndax man baajin rek laay takk ku xamul dara rek laay takk dégg nga lool ñoom ñu bari kom suñ jikkoy góor ñi lañ xamee duñ respect jigéen ji sëy ba tas ku xamul dara boo ko takkee benn guddi gu nga bënn ko rek xam na dara ba pare yàqu na fi ne jeex na nit doo ko takk bi ko xamul dara paquet bi maa koy njëkk a daj ji mais ni gune gu ndaw it's ba the quality of jigéen ji yuuram gi nu mel façon ngi jigéen jum do bënn ko mos kenn mësu koo bënn du tax mu nekk jigéen ju baax si yow anyway that's another story tàppatelee ne te séddoo léegi mu ne góor gi fa koy wax loolu lu loolu mooy ne yow yow nga war a xam saas ma takk la xoolal loo rek léegi ndeysaan far mu doxee ci hëmb xam nga rek ñoom pañi di jéem a def say jullit ndeysaan di am doom te ñun suñ góori jullit yii danañ gàddu suñ xàq ñoom ñu bëri boo leen defaree say jullit ba tax ñu takk la nga xam doom te fekk nga xamoon doom sax ngay tiit ragal a xam doom waaye nga dellu xamaat doom ak ñoom fa mel ni man tey ami nga takk ma may ragal a xam doom di xalaat ne su ma xamee doom nga toroxal ma ta maa ngi xamee suma doom yi yar leen man kenn fi sonn ba dee xam naa li ma daj léegi su ma jàppee si yàlla ba xamal la doom ba pare nga ñëw def ma kii li ko dal ndax lool dana ma neex ma continuer xaat di xamee xaat gu ne man kenn xalaat lool sax maa ngi bugg a jooy tàppote leen vidéo bi rek li ngeen di def du caaxaan de du ne ni ñi fañuy wax bi ko ni ñi fañ bonde xalaat leen bu ngeen doon jigéen ne si ñun ngir yàlla xalaat leen lii ñun ñoo leen jur li ngeen ñuy def nii lum do ñun ñii fañ xame ay doom yu góor comme ni seen yaay juree leen ngeen di ñu def nii yéen ñi koy def xalaat leen seen bàmmeel ak xàq su ngeen ñu ko defee ngeen ñu baye jooy fukki at ci gannaaw ñu kanam ñu ngi jooy ñaar fukki at ci kanam ñu ngi jooy ngeen ñëw di ñu xas na di ñu ci tegal naan bugg ñëw sëy he ba ko defee jigéen ji ñu takk ko ba ko kii góor gi takkee te ak moom jigéen ji biir fi ne mu ngi biir ba diis te sey bi fi ne nii jeex na maa ngi faan jigéen ji laay story bi moo daw suma yaram rek jigéen ji ne ci live bi ni maa fine it's fine waaw ok no problem it's fine may def vidéo bi rek moo tax waaw mun nga maa xukkaay may def vidéo bi moo tax jigéen ji fay ñëw wax ci sax billahi benn jigéen la moom laay wax story bi Fatou fa daw yaram benn jigéen bu ne bu ne Amérique waaye waa Somalia la moo ne nii si si si live bi sax billahi it's fine don't worry it's fine si dina fine waaw Mm-hmm, love you too suma doom ji jigéen ji gi nga lii baaxul sax ngeen di ko def gune di ko gis fay tax gune yi ragal askan bi te gune yi fa ñuy jàng ba xam xam-xam war a séyeeg waa askan bi ngeen di def nii seen yaay ñu di ko gis lii ñaaw na jigéen ji sax fa amee te doomam ñu ne Amérique di jàng kenn xamul lu ñuy dox ndax jigéen ñi doomam ñu danañ ñeme séyeeg waa waa Somalia su ne jigéen ji mu ngi séy ba tax sama jëkkër jëkkër ji di ko def ni doomam yi ni ñuy ñemee seen waa Somalia kon bay séy ak ñoom lii ñaaw na te yéen seen doom yi seen mbokk yi seen doom yi ñu ngi nii soxla suñ doom yi ñu war a sëy ñun ñu ngeen di toroxal suñ doom yi di jàng ñoom ñu ci bari di barke ngeen di toroxal seen ndey yi nii mel ni ñu wérul seen bopp ngeen koy def de ba ko defee jigéen ji bañ ko takkee borom defu ko muy nit naan ko mosuma sëy ku ko xam ne fa fa biir fa fa sëy ba tas soori mosuma borom yow yaay pëlëm wiir man ay vagin rek laay takk loolu mooy ne fay takk vagin yo pare tëdd ak ñoom ba pare leen nu mu ko waxee ay vagin rek lay takk xalaatal loolu ay vagin rek laay takk yéen gune yi fa ñu xamee seen vagin ba nekk mag ngeen takk leen te faalewu leen vagin nga vaaliwu leen ko sax just pour bënn ko rek moo leen ciy neex na bënn vagin bi rek billahi góor gu bon a feebar ta bon ak jigéen gàddu boppam ay xat di xaaye boppam di protect boppam suñ ko xarafalee buñ ko xarafalu nga ñëw bënn ko rek sànni ko yow bënn bi rek moo la si neex na nga nekk de pëlum wir paaseen ku ko bënn nga expérience ko loolu rek moo la si neex ko defee fekk waay fekk tardé na bu ne bu ko góor gi di wax yenn yi buñ la koy waxee fekk yow biit nga ba pare moo tax bu leen def ñu takk leen de ngeen biit ci saa si oytu leen de at least ngeen dund borom benn at wala ñaar bu what am I gonna say I don't know lii daal dafa raglu rek yéen yéen a tax ba jigéen ñi léegi di protect seen bopp ba jigéen ñi mënatuñoo sëy correct sëy ndax jigéen suy live in fear di protect boppam torop du la mën a loof nu la war a loofe nit ki nga ko war a takk rek mu biir si saasi su fekkee ne deful dara lu ci bëri bu ci yàlla xàndee waaye ngeen di takk nit muy naan garab ngeen di takk nit du ñemee biir ngir jikko yu bon yu bëri yu ngeen di def kon nag ku leen di wax ngeen ba kooku du seen ennemi yéen yenee seen ennemi bopp yéen ñi mel nii yéen a yéen góor ñu baax ñi yéen a war a kon dem condem façon góor ñi di ko wax di ko débat pour góor ñi wecc ISRA ngeen di attaque jigéen ñi koy wax ba mu ko defee góor gi ci jullit yi la xëppee na surtout julliti africain yeeg jullit yu ñuul yi du af du Gambie Sénégal rek de ñii li ñuy daj ma di leen gis ñuy live vidéo si wax saa yu ne ak ay YouTube vidéo léegi ba mu ko defee ba ko góor gi takkee defu ko muy nit naan ko mosuma takk ko ku sëy ba tas yaa ci pëlëm wiir man ay vagin rek laay takk mooy gune yi ñuy jël les leen ñaw leen noonu ñu yi ma la doon expliqué na démb noonu yi mu la doon wax démb noonu te buñ la defee noonu ba tey duñ la respect buñ la takkee fekk ñu les la ñaw la tëj la ñaw la ba seben sax doo ko man pour ñoom buñ lay takk nga do vagin buñ la xamee duut ne ngay nekk vagin ñu respect la loolu moo ma siy gën a métti gam bi sax gune yi ñuy xarafal duut ne góor ñi fi leen di takk ñu xaraf rek góor ñi respect leen because xaraf nañ oh ma xam jabar bu xalaf nga treat ko nice loof ko su ko defee méttitu xaraf bi yëpp dem mu jar ko bu fañ lay def xaj si biir xaraf boobu laaj ko jigéen ñi xaraf Gàmbi bu dee may fen seen sëy yi fa ñuy tas seen jëkkër yi di njaaloo di leen toroxal comme jigéen ju xarafu nu muy amee góor gu bon tapo ko rek tapote ko rek tapoteel <clears throat> vidéo bi rek tapote leen ko rek léegi on ko defee góor gi takk ko di ko sonal mu ne déedéet déedéet mu ne boo ko góor gi takkee xamul si moom propre jaamu bu baax noonu di façon wax yi ma la wax nii mu di ko ko wax ak di xam problème dinaa ko laajaat foofu mu gën a leer bi ko so xarafam bi la mu ne xarafam bi fay tax muy xam ay infection ak yeneen problème parce que ñoom fañ leen di xaraf ba pare dagg lii ba pare les ngaam yu ndaw yi ci biir ñaari ngaam yi bu bu ndaw bi ak beneen ngaam gu mag gi nga xam ne mooy dëpp affaire bi di ko protect you know yëpp la ñuy les bam set weej ñaari ngaam yooyu ñu dal di koy ñaw nag mu flaat nii lay mel nii la kanami jigéen gi mel fa mel ni lii andeen xam bën-bën bu ndaw jeex na billahi nataale moo ko gisee ma doon jooy doo xam ne sax lii kanami nit la léegi nag boroom loolu fay xam infection xam ay feebar lu kenn xamul loolu yàlla moo xam nu mu ko defaree fa war a nokki xam ngalaw sax waaye du xam ngalaw nga fatt ko lañ set baax nga fatt ko tëj ko prison yépp tëju du nokki léegi boroom si xam doom fay sonn lu ci bëri fañ leen di opéré ñoom seen doom yi danaa ko laaj loolu nga dégg ko docteur yi buñ ko gisee tubaab yi fa ñuy tiit su borom matoo ba tubaab yi gis loolu fa ñuy tiit bay jooy ne ket xam ne lii du jigéen yaa lii lum do ñu nit ku ñu la bon te lii naar yi duñ koy def de naar yi gën a xam nit ñi yàlla léegi ba ko defee danaa ko laaj loolu na fañ ko opéré doom yi ndee taxawal suñ leen opéré wutit mooy ne tubaab yi buñ buñ matoo tubaab yi fañ leen di xar hubbi leen wala lan doom du fay xaj suñ xamee jëkkër sa jëkkër ji du fay xaj bi ko jëkkër ji su la bënnee noon forcé la ba dugg ba tey oh my god jos affaire bi duy nekk normal daal moom lu mu noon ba dugg foofu noonu affaire bi su wéree duy nekk ne yëppay teppeeku de lu mu for fu mu forcé noonu ba dugg bën bën boobu rek mooy teppeeku li ci des is not there ba pare jigéen affaire am bi xam nga élastique la di def nii te ñoom fatt nañ ko xar leen lan seet nañ koy yëpp ko ba kenn xamatul lum do léegi mu ne bu mu nekkee di ay ay infection yooyu noon docteur yi ne ko ma lan lan la nekk di ko faj daal pare ne ko doo mën a laalante léegi parce que xëy na mu ngi ba tasee jëkkëram xëy na mu ngi toog ay xaat laalante wut ba xamaa jëkkër ju xees ji xam nga li ma la mu dugalantee moom rek te dëkkuñ benn place far mu jeex doxee ci biit te mën naa am jëkkër ji fa doon laal yeneen jigéen xam ci infection wàll ko ko you never know léegi danaa ko laaj loolu yëpp léegi mu dox kanamam gi am problème daa am ay feebar daal noonu laa koy gàttale léegi ñu ne ko doo mën a laalante fi mu ne nii ba lii wét ñu di ko faj mu wax ko jëkkër ji jëkkër ji ne ko déedéet xam naa ngay wax noonu de buggoo ma laal la kon jox ma ci gannaaw mbala duma la defal dara li ma war a def man mi sa jëkkër li ma la war a yónnee xaalis wala dimbale la ci parce que maa la takk duma ci defati dara parce que yow ni def li la war xoolal loolu jabar ji xëmb sa biit feebar man laa woon li docteur yi wax man laa woon këyit gi nga ne ko déedéet kon nañ def si gannaaw ci biir biir bi noonu fu mu xamee ci gannaaw góor ñi nga xam ne fañ ne ci dëkk yi ñuy fàtt jigéen yëpp góor jigéen lañ ci gannaaw la ñuy juutal jigéen ñi fi mu ne nii si problème bi la ne sey bi fi fa xam problème ndax xaw fa jeex xaw ma xayam te jigéen ji mu yëm ba pare xamul dara xame ñaari doom yi plus ëmbam bi plus feebar plus góor gi di Hello, sis. Yes, I'm going to ask you some questions so I can continue explaining to them. Tapote leen rek. Okay. Mm-hmm. So now, the question I want to ask is, when you have your children, uh, you, have two children, right? I think. Yeah. Did you have them natural birth or did you do operation or something? I had the first one, natural birth. Mm -hmm. Was it in here or Somalia? It was in Uganda. Mm -hmm. When you have natural birth, did they cut you? Did they do some something like to yeah. help you? Mm -hmm. So basically, when you had a FGM, you don't have enough space. You had like small tiny hole, mm-hmm. so they have to cut you severely Ooh. They have to get you uh, big time. Like they have to get you like uh, so in order to get a lot of space, so the baby can come out. Mm-hmm. So what they did was after when they came near the baby came out, they sewed me back the way I was. They sew you back. yeah. <gasps> But the second baby is not natural birth. Is they take it out or the something? Second baby, I had a C-section. Yes. Okay, Mune. doomam jum njëkk a xam fañ ko yow Uganda la ko juree du Amérique Uganda te mu ne fañ ko fañ ko xaroon parce que mu ne su fekkee ne ñoom xarafal nañ leen ba ñaw leen noonu tuuti bën bën bu ndaw ngay xam doom du ci sa nangam bi du mën a yaawee ko pour doom ñëw léegi te xam nga yàlla ni ko defee bu dee loolu rek la moom mën naa yaawee doom ñëw waaye bu dee loolu nga wecc yow ñaw ko yow loolu du mën a yaawee nag mu fañ ko xar-xar bu bon mu ne ñoom bu ñuy xam doom natural fañ leen di xar-xar bu bon xubbi leen suñ paree ñu ñëwaat leen ba mel na meloon léegi nag mu ne waaye ñaareeli doom bi Amérique Amérique la ko xamee fañ ko lifin fañ ko génne juru ko ci kanam gi you know fañ ko dindee ci biit bi ok that's fine so now I was explaining how this man, you know, how you have some infection or something. It could be the infection, pardon me, it could be whatever is wrong with you. Was it infection or something? It could be from him even. Um, you So normally the symptoms, if you had a severe case of FGM, you will constantly get a UTI. That's one of, that is part of our symptoms. Ah, if you have UTI. Ah, and, yeah. If you have an intimacy and you had a, um, severe case of FGM because do you know where the bladder comes out? mm the urine comes out. So I have scar tissue that's covering. So when you have uh, intimacy, the sperm, the liquid, the juice, it, will go in there and it has a barrier like it has you know like there is skin that's have space to go in there to clean it up

léegi góor gi su daanoo nii ñëw affaire bi fay xéeg ci kaw parce que affaire bi fay koy les-les comme nu ma la ko waxee noonu ñaw ko ñaw ko ñaw ko ba mu des bun bun bu sew ñu wëcc ko fa léegi góor gi su daanoo affaire bi fay xéeg ci kaw si yeneen place yi ne ci kaw nii yi nga xam ne ñaw nañ ko waaye xam nga duñ yàlla ba tey affaire bi fay des you know fay xéeg daal travel si yeneen côté yi nga xam ne waru fa a travel te yow jigéen ji loo raxas-raxas doo mën a jot lool bi ko ñu ngi ko ñaw mu fatt ci kaw nii doo mën a jot loolu ba raxas ko fa xuuteeg nangam bu boo xam ngay raxas rek yëf set léegi nag affaire bi bactérie boobu noonu nag lay créer ak feebar ci biir nag moo tudd UTI mu ne feebar boobu mu ne jigéen ñi xaraf-xaraf yu bon yu métti yi teñ fàttali leen ñaw leen dañ ko dee xam ey ndeysaan mu ne loolu la xam léegi bu ko xamee nag ñi di ko faj loolu nag mu ne góor gi duma mën a laalante léegi ba affaire bi wér si la ko góor gi ne lañ laalante si gannaaw taxawal ma laajaat ko foofu mu gën a leer after you have that infection and that you tell him that I cannot have, you know, I cannot sleep with you now, then he said that he want to do it at the back. So he likes, he like, you know, like in Islam, you mm -hmm. um, it's not video. allowed. Islam is not allowed for a man to ask the woman to do anal sex. Yes. You know, mm -hmm. and he, he he wanted me to do anal. We talked about it before, when we were getting married, I said I wasn't going to do anything that's not allowed in Islam. Mm-hmm. And he agreed with it. And he will try, you know, like he will like try on me because a lot of the men, they have problem with porn addiction. You know, they watch porn and they think that is how it's supposed to look like. So they will try and mimic and practice on what they watch from there. Yes. let me explain that to my people mu ne yàlla fa xaaye nit ñi bu ñu tëdd ak nit si gannaaw léegi moom bala moo sëy moom wax na ko ne du ma tëdd ak yow si te mu ne góor ñu bëri fañ miin di seetaan nit ñi koy def noonu ci ci vidéo yi bëgguma wax tur bi parce que TikTok yéen yi sooy wax yéen yi du ko nangu tàmpati leen vidéo bi te seedoo ko rek lii lu nit ñi war a jànge la lii fay dal suñ jigéen ñi di dal suñ nit ñi ñi ak ñun ñëpp a xam mu ne góor ñu bëri fa ñuy seetaan lool xanaa xamoo ne mbiri góor jigéen ak jigéen jigéen ak yu bari ni ñi xam nga tax ñu di ko def seetaan oytu leen li ngeen di seetaan loo yàgg seetaan nag lu mu bon bon doo ko xaayalate léegi mu ne ba ko defee sala ko kóog wax ne ko moom fa bu ko def si gannaaw te mu ne fa miin seetaan ay ay lu bon moom góor gi seetaan yu bon yooyu nag mooy tax mu bugg wax ne kon nañ def nangam kon def nangam ku den du hut seetaan lu bon rek fa koy yàgga def ku dem maybe it's not just he watch it maybe he's even doing it Mm. But, you know, like people, they don't want to talk about it and issues that a lot of women, they struggle at home. Their husband being addicted to cone. I wanna to share two more stories with you guys. So I'm gonna go pray and I will come back so you can explain to them. there was a little girl. Mm-hmm. They did when they did the cutting, they forget to make the hole for her. Mm-hmm. Then she couldn't she <gasps> because every, they sealed everything. They didn't even give her one hole or two hole. They give her zero hole. They sealed everything. Oh my god. And then um, she couldn't pee for one week. Nobody even noticed, and she was very sick. She almost died. Her kidney they were failing. She was getting fever, so they rush her to the hospital, and they have to open and give her space. <gasps> oh my god. And there was another story, it's actually it's still on YouTube, documentary. I watched it in YouTube. Did that happen when, in your country? Yes, Somalia. Yeah, yeah, yeah. Mm -hmm. So there's another documentary that I watched that I want to share before I go pray, so you can you will have the time to explain, so I can do my prayer. So you know, like when the man communicated with his wife when she's having problem, after when she went through FGM, if a man is intelligent you could there, there's going to be a lot of better outcome so there was this somali man he was truck driver his wife she underwent through fgm and she was having so much pain and she was having she was constantly getting uti she was constantly getting you know like you know cyst she was constantly getting cyst where the scar tissue is because the bacteria will travel there and it will stuck there and it will the skin will make cyst inside there so um, he asked her like what's wrong like are you having struggle he did the research what and the problem that comes with female genital mutilation he did his own research and they say you know what uh, you're my wife and i love you and this happened to you and i know it's not your fault and you shouldn't have to go through this so they both sit down together and they did research how to seek for help so they came across a doctor named dr mercy brown she do fgm cases and she goes around the world she even she she even helped practice and clinical practice in kenya she go around the world she travel around the world So she what she does is she will open the scar space. she said that the clitoral is six to seven inch long. So what she will do is she now they cut the top meat and everything, but the one that's left inside they didn't cut So she will pull it out and give it a shape and then they will remove skin in between your your your cheek on your face you know the inside the cheek and mm-hmm. between mm-hmm. your teeth the cheek and the skin tissue it's kind of like a similar to the skin down there so they will do like transplant and they will make you uh, all of the thing that they carried out of your body and they will um, fix the nerve damage and they will also fix the clitoral that was cut out so they will pull some more from you inside your body and then they will give you medication and they will give help you get um, physical therapy and actual physical therapy so there is a place where you can go and they will do like they will use some vibrator to help the place to help get blood circulation Mm-hmm. But and you mean the, the, should be maybe not not inch though, maybe not not six to seven inch. You do you mean centimeters? I don't know how long no, centimeters. The clitoral is six to seven inch long. No, inch. That's what she said. I have. Not I watched inch. video. You mean you Did anyone know how long is centimeters, guys? Inch. that's man that's men men they are six to men, men they are six to seven inch or more they're manhood and women and and women they do oh. because the clitoris yeah the clitoris it, it does it's not only what is outside it's, it goes around inside your body it surrounds all right yes but i think what i thought you're talking about what is outside no no no no it's inside right. your body it's inside yes okay yes yeah So she will pull it out some more inside your body. All to, right, yes. Okay, yes. She will expose the clitoral, yeah, nerve system. She will to expose try to it. prove it, you know, to make it brand new. Okay. Yeah, because um, so the husband, the Somali guy I was talking about, so he found her and he communicated. So they do the surgery for free. They don't charge you money. That's a so good husband. All, help the wife. Yeah, he helped his wife and he took her to the surgery and she get fixed you know like they help her with the pain she was going through and she help her regain her sense of sexual you know like Lesson, she's yeah. supposed to yeah she's supposed to enjoy that moment with yeah it's not like a pain you know when she's doing it it's painful and uncomfortable yes yeah they they help her like give her more space and remove all of the bad scar tissue the dead scar tissue from her body and they, she had to go through a lot of different physical therapy and the whole time he was there for her you know like he didn't left her he was he showed up for her he was comforting her he was saying that me and you we in this together and one day we're gonna come a better side of the end of the tunnel oh, because nice. a lot of men a lot of men instead of helping their wife and understanding their pain They don't want to do that. They go and find another one. Yes. And they will leave their kids, they will leave their wife, and they will go start another family and they will do the same thing because in, in the same culture, when you marry the same people, they have the same issue. So they don't, they're not trying to understand. Even when you try to communicate, some women, if they try to communicate that with their husband, they refuse, um, they, they will not listen to you. Like they will be like, Oh, now you want to imitate the kuffar? You want to but forget also, do you understand why a lot of men from your country, a lot of people from your country don't want to marry African men? Do you also understand why? Because a lot of African men want want to marry your, your women, but a lot of your women don't want. Do you also understand why? Because um, a lot of people, they think like the other African man they have a big one, so they can handle. They struggling with oh. yeah. <laughs> That's good. You explained that. I love it though. I love big one. <laughs> okay, you go and pray and come back. <laughs> I'll explain to them. Oh, that's so nice okay. Oh my God. Okay, you go and pray and I explain to them what you said. <laughs> guys tapote leen <laughs> ah baax na si ma laajte ko loolu de guys what do you think because sur loolu ngay foog ne dañ dañ bon wala dañ racist wala nangam du lool moo tax laajte baax so guys danaa leen wax lu mu wax tapote leen vidéo bi rek nag lu mu wax lu neex la baax tañ muñ see jàngee you know fu mu jaar ngeen xéegal vidéo balaa ma leen ko wax bot dana leen wax lu mujjee wax nii loolu tax lu neex la te foni mu ne ma ne ko yow nag lu tax seen jigéen ñu bëri du ñuy nangu jigéeni african am góori african takk leen you mu ne ma parce que góori africain yu bëri seen lifin bi def dee rëy moo tax ñun dañ koy ragal ndeysaan xam nga ñii dégg naa ne seen góor yi seen lifin duy rëy moo tax ñuy xarafal jigéen ñi ba pare ñaw ko fatt ko loolu dégg naa ko waaye ndeke dëgg la léegi góor goo xam ne lifinam bi fa tuuti xam nga wax naa leen ne moom moom moom moo dee bugg jigéen ju xaraf wax naa leen ko ngeen fa ne may caaxaan jigéen ju xaraf góor ñu bëri ñu koy bugg seen lifin bi moo tuuti ñu bëri buy fukki góor ñoo ko bëgg juróom-ñeenti yëpp seen lifin bee tuuti kii leeral na ko gis nga ko ni mu la waxee ne ñun so fañu so fañuy ragal seen góor ñi ndik seen góor ñi fañu ñun dañ dee foog ne seen lifin bi duñ ko mën a xandul ñun mooy ne ñoom seen góor ñi xamuñ dara moo tax ñuy jël jigéen ñi xarafal leen ba pare ñaw leen a ñaw a ñaw a ñaw ba mu des bën bën bu ndaw tapote leen te seddoo rek léegi góor goo xam sa góor yaa fa tuuti jigéen ji bindut la ndax loolu war naa tax nga jël jigéen jël lañ seet ko ñaw ko pour sa góor yaa gi yow mu xam mu xam mu xam filin mu xam lu ko neex jigéen ji moom muy dee. léegi tàppate leen rek mooy li ma leen di wax ne fa xam góor ñu baax ba tey lu lu xam lu mu xam lu mu bëri bëri góor ñu bon si àdduna si fa xam góor ñu baax comme ni nu mu bëree yeneen jigéen ñoo xam ne tam mënuñoo nekk jabar ya bot <clears throat> si man si su suma expérience si suma askan bi si askan bi yu ci bari góor ñi ñoo dee gën a toroxal jigéen ñi ku ko weddi waxoo dëgg. loolu moom ku ne xam na ko exactly moo tax ma dee wax góor ñi all the time but it's not like jigéen ñi ñëpp a baax you know but anyway léegi moom lu mu ñaari kees la fi wax yoo xam ne seeni waroon fañ xaraf gune gi mu ne bosam fañ ko ñaw yëpp fàtte ko wëccël bën bën bu ndaw bi muy seben ñu ñaw yëpp gune ga mënta seben tuuti mu dee seben ma ne ci yaramam yi mënta génn ba gune ga commencé di am problème bu ga dee semaine yi yàlla gune gamanta semaine te gars yi xamuñ seetluwuñ ko ñu yóbbu ko lopitaan docteur yi gis ko ne woy kii xamul fu mu dana dee ñu dal di koy opéré xar ko tuuti semaine mi génn gis ngeen lii de xool leen gune googu rek ak yeneen gune yi dee ngir loola ko jox doxee ci xam problème fañ koy ñëw a ba semaine mi suy génn fay génn toq toq loolu la fi wax démb suñ ko ñëwee ba pare fañ leen wax ne demal semaine ñu seen ndax ñaw bi baax na sooy seben suñ déggee seben mi ne cor di génn comme sebeni nit fa ñuy wax ne wu ñëw bi baaxul yaa ngi seben comme góor dal di koy ñawaat ba sooy seben ñu dégg ndox mi naan toq toq ñu soog waa seben mi baax léegi ñaw bi baax na su ko defee mu ne fa xam luñ ciy dugal si biit bën bën boobu pour bum tëju suy wér bum tëju nga tëdd nag sa tànk yi xubbeeku ñu takk ko semaine yi yàlla gune gi fay tëdd tànkam yi xubbeeku ñu takk ko xool leen lii rek xool leen lii rek ndax benn bën bën bu ndaw boobu noonu ñu dugal ci benn weñ dugal ci dara pour bu affaire bi yëpp wér te ba pare gune gi buy dox mu ne gune gi buy dox ak jaabante affaire bi ñaw ñaw ñaw bi fay teppeeku moo tax gars yi fa ñuy takk gune gi tànka ñu mu tëdd ci benn lal foofu lay lekkee foofu lay naanee foofu lay defee lu ne du jóg ñu di ko lalal sagar mu di ci def lu ne ba semaine bi jeex bañ gis ne wér na ñu soog ci gune gi mu jéem a dox di cokor cokor yi lifin xool leen lii rek dégg ngeen ko lii yëpp gune yi fañ koy daj jigéen ji daj ko jos pour góor gi nga xam ne góor yaa xam gi fa tuuti moom bu koy nangam mu neex lool rek léegi soo ko takkee nag di njaaloo ci kaw lool di ko dóor di ko toroxal di ko bitiree di ko biiral mu xam ay doom nga bitiree ko ci kaw lool xalaat leen yéen bu ngeen doxoon jigéen di dund loolu looloo tax ñi seen jigéen ñi fa ñuy naqadi deret ci seen doom yi fa ñuy strict gis nga nag ñun mbon gi ne ci ñun gu ko raw moone ci ñii nag boo doon dégg seen vidéo yi àngale wala nga dégg seen làkk ndig métit wiñ dunda tax ñii seen jigéen ñi ñoo raw ñun ñoo daq jëw daq bon da mbooleem lu suñ jigéen ñi de lu ko raw la ñi di def ngir métit wiñ xame jigéen ji dund métit nga toroxal ko am du xeegu ne du caaxaan yow jëkkër ji sax du la mën a defal ni la war a defal ci xol bu sedd dafa xamee naqat baleen gune yi ngeen di naqadal keep tapping and sharing léegi beneen góor gi am going to speak in English soon léegi beneen góor gi ñaari beneen gune gi ki nga xam ne fa xaraf mu ne kooka ba mu magee fa xam jëkkër ba mu xamee jëkkër mu ne ba muy laalante jëkkëram mu xam problème bi mu xam moom nii muy ne bu ko jëkkër ji laalee bo ba daanu ci biit affaire bi sépaam bi xaw ma sépaam xaw ma su may wax faana fana du mën a wax wolof spam bi fay dugg si biir tasaaroo si biir yaram wi ci biir taat yi ci parce que fañ ko ñaw ñaw ñaw ñaw ñaw ñaw ñaw ba mu def bun bun bu ndaw léegi bu góor gi daanu affaire bi fay tasaaroo si biir ci kaw noonu te fekk nag bi ko ñu ngi ko ñaw yow doo ko mën a raxas fi bën bën bi rek ngay jéem a raxas te loolu sax doo ko mën a raxas fa xuuteeg jigéen yaa nga raxas rek nii mu yomb ndeysaan léegi loolu nag moo lay indil infection comme infection bi mu xam nii moom xama yuuti ay la tudd xama mu ne mu ne waaye ba ko jigéen jooja xamee moom fa xam jëkkër ju baax ju xuuteeg jëkkër jim xam nii mu ne jëkkër ja fa ko ne nañ dem hôpital lii yow tegoo ko sa bopp ngaa doggu ne ñu def la lii duma la ko baxee nañ dem hôpital lijjanti ni ñuy def mu ne si la jëkkër ji dem online research xalaat euh, jàng jigéen ju xarafal ñaw ko problème yi muy xam bu tëddee góor mu gis yëpp mu ne ah, lii la suma jabar xam mu ne si la dem gis benn docteur si internet bi ne fay faj mu contact ko lijjanti lijjanti ba yóbbu fa jabaram lijjanti lijjanti ba jabaram fu ne nii docteur yi opéré ko xaaralifin bi tuuti mu xaw a ubbeeku tuuti ndax mu you know defaral ko jigéen yaa daal fañ koy jéem a tabax defaraat ko opéré ko defar defar defar mu ne jëkkër ji ne ko duma la fi badi wuti keneen te duma la ne di indil problème maa ngi yow ñooy bokk lii faj ko ba nga wér ñu continuer suñu sëy bi dégg nga ko de loolu mooy góor gu baax moo tax ma ne leen góor gu baax xam na ba tey noo matawat bu leen give up waaye mu ne góor yi seen askan bi ñu bëri ni ñuy def mooy suñ suñuy tëdd ak jigéen ji muy feebar ak xam infection fañ koy romb xam jànq wala xam beneen jabar sànni ko instead of dimbale ko xeex feebar bi you know dimbale ko faj ko now am gonna explain in English keep tapping and sharing waa gis nga ko Yes, that UTI thing. So what I am explaining here is, if the man have a small manhood, that's his fault. I mean, not his fault. That's God make him like that. Especially if he's a Muslim man, he should agree to that and accept it. God create him like that. Either you short or tall or black or white. God create you like that. You have a blue eyes or not. Take it like that and accept it. don't try to force the woman to sew herself to death just so you can get in imagine if you're a woman so people have to stop FGM that they have to do all of that cut everything and so so just so the man that with his tiny thing can go in no women have different size by the way women their womanhood is different size. Some are wide and deep inside and some are smaller, just like the man have different size. So try to find a wife that can take you then. Or try to do whatever, but do not force the woman to, make herself small and so, so, so, just so you can get in properly the way you like it. Do you think if you are a woman, you like that? No. Stop doing that to young girls. And after the man marry them, he will not even appreciate them now. look at this. Lot of women in my country, Gambia, that are, FGM, the man is still cheating, marrying other women. Even women that are not FGM, they will marry them. Ask them if I'm lying. They're watching me. My tribe don't FGM women, only men. They love, I mean, men go to, take this thing, not us. They love our women. Lot of these Mandinka people and Sarahule and other women that do, other tribe that do women. They will come and marry us and say that, oh, I love my Wolof wife. She's not touch. It's the best. They will say that everyone will hear it. Ask people watching if I'm lying. So what's the point? I'm back. Yes, Do you hear? Do you know the nickname? Yeah. Do you know the nickname they have? Uh, in, I don't know if you people have a nickname for the female who went through FGM. Do you know like um? Do you guys in your country? Do you guys use charcoal? Charcoal. Yeah. I don't think so. Maybe I don't know because me our, our tradition we don't do girls. We only do boys. Oh, I'm mm-hmm. talking mm -hmm. about charcoal, not not the girls. Oh yeah, charcoal. Yeah, the charcoal. Yeah, the the cool. You charcoal. cook food with. Yeah, the black charcoal. Yeah. It's very good for body scrub and face mask. I use it. I know. Uh, yes, uh, um, and, what I'm and saying for teeth, is for teeth whitening too. Yes, I know charcoal. Yes. You know, you know, like the bag that it comes with it. Yes. What do you guys call it? sa sa sako foreign sako kering yes the bag it for us we call it um, jawan in my mm-hmm. language we call it jawan so they call the woman who went through fgm she's like that you know when the sako first <gasps> oh, oh, yeah and then they also will call like um, like a meme. They will also make fun of it and call her like uh, she's a dead body who's just lying down with no feelings and with no human emotion. <gasps> so they're bullying her for that after they did that to her. <laughs> yep, that's what they call the man, the female who went through FGM. They call her that. Yeah she just it's like she just it's like she has no feelings she doesn't care about anything Like it's like they blame her as if she's doing this on purpose and that's her fault. Let me explain that in my language. Tapote leen te séddoo mu ne maa fekk maa nekk di wax ne góor ñi nga xam ne seen góor yaa gi fa tuuti ba tax ñu ne nañ xarafal jigéen ji ñaw ko pour moom góor yaa tuuti gi mën a dem moom ñem seen góor yi seen góor yi dëkk ñoom ñu bari fañ xam góor yaayu tuuti meluñ suñ góor yi dëkk suñ góor yi dëkk yu bëri fañ xam góor yaayu correct léegi. mu ne euh, ñoom seen góor ñoom seen góor ñi ak jos ñoom in général ba surtout góor ñi gannaaw buñ la xarafalee nga def loolu yëpp ba pare nga dundu métit boobu yëpp fañ lay ñaawal di la xooxee ne yow nga mel ni saako këriñ saako këriñ mooy jos saako këriñ boo xam ne daal ku la yëkkatiwut doo muuf doo yëngatu mu ne toog ne dik di xaaral maanaam doo yëg dara parce que fañ la dagg ñaw la xamoo filin xoolal lii rek léegi mu ne fañ lay xooxee tamit lan ne jigéen joo xam ne ngay mel ni ku dee ngay mel ni niw buñ lay laal ngay mel ni niw doo yëngatu parce que doo yëg dara mu ne loolu lañ leen di xooxee jigéen ñu xaraf ñi gannaaw buñ leen xarafee lañ seet seen yaram wi si biir yëpp ñaw ko li ma leen di waxal ndax yéen a ngi koy dégg ñii duñ leen di xaraf rek de fa ñuy xaraf ba pare ñaari ngaam yu ndaw yi ci biir ñu les ko am set lelli ko yeneen ñaari ngaam yu mag yi ci kaw ñu lelli ko yëpp des kàmbag mu des kàmbag neen gi ñu ñaw ko nag der bi nag ñaw ko ñaw ko ñaw ko ba kàmb gi des bën bën bu ndaw ñu dugal ci benn weñ pour bën bën bu mu fatt ba pare takk gune gi tànkam yi ñaari tànk yëpp lañuy takk nag si lal bi nag gune gi tëdd noonu semaine yi yàlla du jóg foofu lay semaine foofu lay day foof lay lekkee pour mu mën a wér te te bën bën bu ndaw bi ñu ko baxal noonu dugal ci weñ gu ndaw googu noonu mu ngi googul nataal baa ngi googul ndax yàlla bu bu yëpp weñ gu ndaw googu noonu fi ñu ko dugal foofu lay sebenee te buy seben seben mi fa war di toq kii mu ne fa nga lool boo ko defee saa wooy seben seben mi du génn moo tax fa ñuy yàgg ci wanag bi di seben wax na ko démb fii te loolu déggoon naa ko bu yàggit fa ñuy yàgg ci wanag bi di seben ndax seben mi toq-toq lay ñëwee du ñëw cor comme seben yi nit ngay seben ba pare mu ne ngay jóg génn ci wanag bi te fekk seben mi jeexul mu ngi des ci yow ba tey seben mi continuer di rot ngay tooy moo waral kon jigéen ñi tooy ndeke parce que man jigéen ji jóg tooy yàgg naa koo dégg mu di ma jaaxal jigéen ji jóg tooy soo jógee fu nga toog tooy lu ko waral kon nga xamee feebar wala lan wala kon ñoom comme li muy wax nii la wala lan parce que mu ne ñoom li ñuy li ñuy dund mooy ngay seben ba pare seben bi yëpp génnut seben maa ngi tag si biir bi ko salifin bi nuñ ko ñawee ñawaale fi seben bi war a génnee yëpp la ñuy ñawaale ba mu des bën bën bu ndaw boobu soo xamee jëkkër te bi ko seen góor yi seen góor yaa ngi réyut bën bën bu ndaw bu ko góor gi bënnee ba dugg sa biir ba tey yow doo hubbeeku bu baax léegi nag sa sebenukaay ba tey mu ngi fatt xam nga sebenukaay bi ci kaw la ne léegi nag soo sebenee seben bi fay des si biir ba tey lu yàgg di di di toq di toq fekk seben nga ba pare bu yàgg muy toq di tooy rek ñii nit ñoo gën a sonn ci jigéeni àdduna jigéeni Somalia de suffer the most among all the women in the world Somalian women a one of the women da suffer the most with FGM and other Africans that does like them that does the Gambia, they don't they do normally just the cutting. They don't sew. And they, also do the sewing sometime, but they hardly do that. lot of them do the cutting more, and then they do the soaking. After they cut it, the blood from there, they use something else with, it, and then they soak it in the in so the hole will remain will until she get married, and then they operate that they, cut that hole fresh for the man to go in. That is also very bad. I'm so glad that my culture don't do women do this. They just do men. The men, you just tingy the skin. But I'm so glad we don't do this for women. Imagine if I was done this. But I know how you feel because I was underage marriage. And that's wrong still. That is wrong that is done to me that the adults supposed to fight for it and they didn't. That's why I'm fighting for all of this to stop. Underage arranged marriage, FGM, everything have to stop. everything have to stop keep tapping and sharing dégg nga kii lum dund do you guys hear this do you guys hear this so if you promoting FGM you promoting these people one you promoting your Gambia one and lot of Gambian people were in the video last time I talk about this by the way and they said also that they were cut and sewn they're doing the sewing in Gambia too the Somalia system. Why you cutting the woman and suing the woman like a piece of cloth? Just so mm-hmm. the man with his tiny thing to satisfy. Nobody is creating this manhood. God create them like that. If they don't like it, let them climb up the sky and go to God. <laughs> what the hell, man? This is the thing is. Mm-hmm. there was a female. They when they marry uh, different culture women who don't go through FGM when they marry her. So they treat her always better and they show her compassion and they show her love and more care and they do and that so when they too. ask yeah so it's like when they marry a white woman or a woman who don't practice FGM like mm -hmm. they show like they, they will cook they will help her cook they will give her massage they will take her to shopping like they will spoil her right so when, they were asked why do they do that they say this somalian woman they ungrateful women they don't know the value and how to appreciate the man because they're like a dead buried lying in in in bed uh, they, they will never get because they have no feelings they're like dead body on bed But these women, they understand the value of man. dégg ko do you guys hear what she's saying dégg ngeen ko de mu ne seen jëkkër ñoom seen góor ñi sax di séem suñ takkee jëkk jigéen joo xam ne xarafut maanaam tubaab wala beneen xeet fañ koy won mbugeel di ko loof di ko toppatoo waaye suñ takkee ñoom fañ leen di sàgganee suñ waxee ñu ne leen ñu suñ jigéen ñi suñ ne ci kaw lal fa mel ni ku dee duñ yëg dara du ñu yëg dara ndig liñ leen def moo tax te jigéen ñi moom you know fañ neex te te lifin te jos xoolal loolu rek ba pare nekk mu jigéen ñi mu ne suñ jigéen ñi tamit duñuy appusee suñ góor ñi xam nga tax jigéen ji du appusee góor ku du appusee ni xam nga mooy kan fa xamee naqat jigéen wala góor koo xam ne loo ko defal du ko doy du appusee dara fa xamee naqat koo fa gaaw a mer fa xamee naqat naqat bi nag yéen a koy créer ci gune yi di leen dagg di leen lañ seet gune jigéen yi gune góor gi der bi ngay dindi dafa baax fa joxe fay joxe wér gu yaram sax tubaab bi sax xam nañu koy def waaye jigéen ji li ngay dagg si moom du der yaramam bi la nga lañ seet ko yëpp ñaw ko traumatise ko moo tax jigéen ji su magee fay naqadi deret benn ñaar laal bi jigéen ji du la mën a app sit si lal bi du la mën a ne di raay dila la fóon di la foxee di la bigal yenn yi parce que néew di yëg dara te li ngay def fay métti sax because yaa ngi ko dagg ñaw ko ba mu des bën bën bu ndaw ngay lifin fay métti sax du yëg dara parce que jigéen yaa ngi nim hande li ngay dagg ni ak yi ne ci pegg bi ngay lañ seet noonu yëpp ak yi ne ci beneen bi ne ci pegg bu mag bi bi dëpp affaire bi noonu yooyu yëpp mooy tax jigéen ji mën a yëg dara yàllaa ko créé noonu loolu yëpp ci li koy jox bànnee la bokk nga lañ seet ko yëpp bam def paxam neen mi rek paxam neen mi rek du mën a joxe bànneex dégg nga ko te jigéen ji fay xam ne suma askan fay soxot moo tax ñu di ma def li jos pour bégal góor mu dogg ne dund métit woowu lu tax mu dund ko pour su magee mu amee nangam bu ndaw ndax góor ñi mën a kontaan loolu la loolu xam na ne looloo tax mu dundu ko mu màgg ci loolu loolu rek fay tax mu mere góor xalaatal yow bu doon yow la loolu rek fay tax du mën a kontaan ci góor xalaat ne góor moo tax ñu lañ set ko pare ñaw ko ndeysaan métit woowu far nag góor ga mag mag di ko dóor di ko saaga di naqadi deret di takk beneen jigéen di ko jàmbu ak xam jànq mu ne seen góor ñi loolu lañ lay xooxee saako këriñ nga foot fu ku la yëkkatiwut doo jóg ngay mel ni niw ci kawlal ba pare suñ xamee ko xarafut ñun loof ko comme góori soose yi wax ne ne xarafal jigéen fii suñ xamee ko xarafut ñoom ñu bëri ko la ñuy gën a loof di séem ñoom it loolu la ñuy dund mu ne this is insane even our men the Mandinka people in Gambia they promote this more and Sarahule and other people that promote it for women when they marry Wolof women They treat her better. Yeah, my point is, if you want a woman who's not a, who's not a cat, why are you promoting? Why can't you guys, you know, like everybody, speak against and forbid this awful practice and say we don't want to have a wife that is cut. We leave the girls alone the way they were created. That's how they because the the sole purpose of they do this practice is the woman to be appealing and pleasing to the man. That's what I'm explaining. That if the woman they have to cut her everything and then cut everything and then sew everything just so the man can be pleased, that alone can make her to not like men. Because she knows like I have to go through all this just to please this person. You know what I mean? Yeah. and the pain and the trauma that she's gonna carry for years and the suffering just for this man to be happy and then the man will marry her and treat her bad on top of that he will be cheating he will be marrying other women he will not even be nice he will be nice you he will be nice to you he will marry you and he will still do other bad things he's not even worth that pain then you know what i mean yeah And that's what a lot of them do. They will marry you and they will be cheating and they will treat you really bad. You know, allow to breathe. They will be like, huh, do this, do that, huh? And so you know sympathy. Yep. That means so they know if you know you suffering like that just to please them. Do you understand what I'm explaining? Do, do you know where this practice came from? Mm. You know Pharaoh, the one from Egypt. Yes, yes. he's the one I who invented. That, sorry. Mm. So basically, before they used to do uh, when when a family they have a daughter, they used to bury her alive. Uh-huh. And then now they have a lot of men with no wife, so they were like, okay, instead of the, us burying the girls alive, why don't we take away her pleasure bond? Why don't we cut off and scrape and mutilate her So she has no feelings and no desire towards man, and she can use as object to please man and to have to <gasps> oh my God! And was those people or what? Um, they were Egyptian. Egyptian. Uh-huh. Mune. mu ne practice bii ni fu mu njëkk xamee mooy tapoter leen vidéo bi te séddoo ko rek li danañ jàng lu bari jàng ci yeneen nit ñi li noo li ñuy dund an staf loolu daf la dee dimbale pour nga xam ne yow kenn rek xamee woo yi noo xeet bu bon ak xeet buy toroxal nit pour nga xam ne dafay tax soo di dund métit wala dund la neexul sa askan nga gën a mën a gëm sa bopp te xam ne yeneen askan yi ñu ngi toroxal nit du yow sa askan de ka mel ni soo baax na si kiilim ñëwee mu ne practice bii ci égyptien yi la jógee mu ne égyptiens yi ñi ko ñu ko daan def ñu bu njëkk mooy ñi nga xam ne fañ daan jur doom ju jigéen di ko rey léegi fañ demoon ba mënatuñoo xam jabar xanaa ñoom wéruñ bu ñuy rey doomu jigéen ñi di xamee doomu góor yi kon nu ñuy def léegi mu ne si la gaay wax ne léegi gannaaw ñu ngi rey jigéen yi xam jabar léegi mu ne si la wax ne instead of ñuy rey jigéen ñi nañ leen dindi seen seen nangam bi. ñaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. xaaral ma jàmbare xaaral ma explain nii rek two second and then mu ne ki leen wax ne instead of ñuy rey gaay léegi nañ leen dindi seen nangam bi fi nga xam ne fa la ñuy yëgee góor ñu lañ seet ko yëpp ñaw ko yëpp toroxal leen daal maanaam ñaw yëpp ba duñ yëg dara léegi nag ñun ñu di leen yuus rek pour gaay di ñu jural doom ndax ñu mën a continuer di suñ nit ñi mën a continuer di bëri you know ak ñoom ñu di leen yuus di tëdd ak ñoom ñu di ñu jural doom falal li jógee mu ne xoolal loo rek. loolu ngeen di def ba tey si 19 1 million bii ni ñi di xeex freedom ñu xeex ne tubaab yi du ñu defati jaam di xeex freedom di xeex human right fu ne président yi ngeen di xeex sax freedom ngeen di xeex surtout yéen naat feq yi ne Gambie di xeex président Barrow naa new di liggéey yéen yéenay xarafal gune yi gune jigéen yi ngeen di xarafal di génnee seen human right bi ba pare ne président yi ngeen di xeex ne président yi joxuñ leen human right oo mën doo ngeen ni ngeen mel tapote leen rek I'm saying that people are fighting for human rights and they don't want to give children human rights, especially women, especially FGMing women. Anybody that you FGM, taking away their human right because not just this is from a evil practice, but also even if this was the sunnah that people using saying that it's sunnah, let's do it. The sunnah the girl have to do it when she grow up. She want to worship Allah. She will do sunnah. Like right now, if I have If I want to pray now, it's my choice to pray as a Muslim. I'm worshiping Allah, not you forcing me now to cut me when I'm a baby. You're circumcising me, they're doing FGM and call it that I'm giving you sunnah. That means you're forcing that sunnah on me. You just do your own sunnah. Things like be nice to people, smile, even smiling is a sunnah. Give even the animals, you give them food, that's sunnah. Be nice to your neighbor, that's sunnah. Be nice to your wife, or more than a sunnah. That is half of yo deen. Why are you not practicing that? Why are you forcing the little baby, you know, to go through stuff and call it a sunnah? li may wax foofu mooy tàppate leen vidéo bi rek xaaral ma wax lii andeen ma bàyyi la nga wax yow yow mi dugg noonu li may wax foofu mooy su fekkee ngeen ne sunna moo tax ngeen di xarafal nit ñi te kii wax na leen xaraf bi fi mu jógee xaraf bi nit ñi wax nañ bu yàgg fu mu jógee dégg naa ko ci waar itam ku ne Ah, ci ci ci nit moo ko njëkk a def wujjam fa xam kuñ takkaloon jabar joo xam ne gune la mu fiir jël gune ga dagg jigéen yaayam gi pour métital ko ndig fiir na noppam yi def xaw ma lan lan pour fiir kii it wax na ne si ñe si beneen xeet la jógewoon i gisu yenn ñoo xam ne fañ daan xam jigéen di ko rey far ñu ne léegi balaa ñu leen di rey nañ leen dagg ba pare wëcci leen pour ñu di ñu jural dagg leen ndax bu ñu dara ñu wëcc leen pour ñu di ñu jural léegi yéen ñuy wax ne sunna la gune gi ngeen di forcer sunna di ko dagg te yéen seen sunnay bopp yi du ngeen ko def rek ree genuine ree bu jógee sa xol bi loolu rek sunna la ree ay ay ay ay ay xar yu know animal rab yi nga jox leen lekk lool sunna la sa dëkkandoor yi nga baax si ñoom loolu loolu ci yàlla wax sa jabar wa nga wala sa jëkkër nga baax si moom gore si moom di ko bégal di doxal jàmm ak moom di def li la war lool moo raw sunna mooy sa genn wàlli diine te loolu du ngeen koy def muuru sax ñun jigéeni jullit muuru moo raw sunna ñun surtout ñun gaam bi nga xam ne ku ñu gis fay foog ne sax duwuñ jullit yéen ñi xarafal seen doom yi gaam bi yëpp du ngeen muuru faalehu leen yàlla te loolu moo raw sunna jigéeni jullit julli sa waxtu juróom ak muuru mooy sa number one priority ak bul njaaloo ak di wax dëgg def jàmm di ko wax boo xamee jëkkër di jaamu sa jëkkër loolu mooy sa number one priority bu raw sunna te loolu yéen yi xarafal seen doom yi du ngeen koy def malu leen sax ni jigéen ni julli kenn du leen gis sax ba xalaat ne jullit ngeen yéen a yàlla ta bon yéen a mën a toroxal nit ta soxot yéen a xam lu bon ta loof ko yéen a ñeme xàq yéen lii du leen jig nag de balaa ngeen a dee moo tax du ngeen di dee si jàmm moo tax fan bu gudd sax du ngeen ko mën a xam ngir xaqi gune yi ngeen di jël yéen Afrique xaqi gune ak xaqi jigéen moo ñu rey te bala maa dee ngeen ne ngeen di xeex human right ngeen di xeex président yi pour ñu liggéey pour bu ñu bàyyi toroxal nit te yéen yéenay toroxal nit masta nag yéen yéen toroxal nit masta ngeen yéen. gune gi ngeen di force nag nee na nee na def sunna te gune gi juddoogul xamul luy sunna sax. nga di ko forcer si moom te yow sa sunna bi nga war a def yow mag mi ak lu raw sunna li nga war a def yow doo ko def yow yaa naa feqata bon yow yaa xiis yow yaa xame koy jaam yow ku mel noonu ku ne allo waxal yow mi ci ron noonu tapote leen vidéo bi te seddoo ko rek yes system keep tapping and sharing video yes say something sis okay xaaral may ko allo salaamaaleykum waaleykum salaam sis wait wait two seconds sis waaw waaw maa ngi jégalu ah. maa dégg naa seen seen kii bi deppi si suba. sista euh, sista Amino. bon man lu ma bugg a wax rek mooy jigéen bi lu muy wax loolu man mi comme yàlla dogal na doomu aadama àdduna foo mënta nekk rek di nga am ñu la ñu la wóolu ba wax la seen secret. Mhm. mooy comme li nga nekk di xeex ni man góor laa. mais damay blâme samay moroomu góor te dama leen di yedd ne leen nañ delloosiwaat seen xel. Mhm. parce que tey góor ñi tey ñi tey bon nañ bon boo xamante ne ni tey doo ko xam ba nga ñëw Europe surtout góoru Europe góoru Europe yëpp ay Chinois lañ ay falso lañ. lu mhm. jéggal ma lu tax ma wax loolu am na ñu ci baax nag waaye boo jëloon téeméeri góor. boo xoolee fukki yi ñoo siy baax lu si des yëpp kenn baaxu si. waaw. parce que dañ fi nekk di toroxal ay jigéen. dañ fi nekk di lor jigéen. ñane Afrique sax di séem. yaa may dégg. Mm. bon man am naa si yenn cas yoo xamante ne du koy ñeme di wax parce que damay jox ñu bëri ay conseil man atelier laa yor fii Espagne bitig laa yor di ñaw mais xam nga àdduna foo dem di nga gis loo xamante ne ni tey lu la yéem lay doon. parce que ndaw soosu lu muy wax man am na sama benn client boo xamante ne loolu paase na ko. ndeysaan daf dafa nekk ak jëkkëram si biir kër gi. jëkkër ji du ko jëndal yére jëkkër ji du ko xottil jëkkër ji du ko. du jënd jënd jigéen waa fan jigéen bi sénégalais la. Hmm. booru booru booru booru booru mais sa ñoom seen dëkk bi si Sénégal la bokk. waaye boo xoolee jigéen bi si ay kàddoom ak si li ma gis mu won ma góor gi du soxla jigéen bi fii ak jigéen bi nekkul di gis mbaax xaay fa bon wallaahi la wallaahi billaahi du ma lay wax nii si sa machine si machine bi laa toog di wax ak yow dama fay machine bi mhm, macha xëy na xëy na dem na liggéey mais bu demul woon liggéey comme programme bi man mënoon naa ko dugal ko si mu même bu waxul turam mu expliquer moom li nga xamante ne loolu lay dund. waaw. bu beneen yoonee incha allah. baax na. genre yooyu noonu daf fi bëri ba nga xamante ne ni tey comme lu kooku noonu di wax gis naa fi benn jigéen boo ne man ak moom ñoo dëkk benn koñ fii Espagne moom it lu mu ragal ragal ragal tey tey am na ak góor bi ay doom daanaka yor na ñeenti doom. waaye nee na si biir sëy bi heure bu ñuy sëy góor bi daf koy foto daf koy daf koy vidéo si biir vidéo bi bu ñu parewee góor bi fu muy mujjee ak moom mooy ci ginnaawam li ma lay wax nii dam si am ay firnde yu leer nañ ay preuve góor laa de yor naa sama jabar góor ñu bëri ci koy góor jigéen lay xamee góor jigéen lañ. yaa may dégg kooku bu defee ak jëkkëram benn yoon ci kaw lal bi buy ñaar rek góor gi ci ginnaaw la koy féete yaa may dégg ba pare teg si nag di ko vidéo léegi nag ndaw si looloo ko ragalloo ba tey mu toog si biir sëy boobu noonu di muñ ak ay doomam yaa may dégg te sëy bi vidéo mi waaw. voilà loolu moom loolu la nekk di xalaat comme léegi amul fu mu koy jooyee mu ñëw di ma ko wax ma ne ko dangay muñ. parce que comme ñun ñëpp ay jullit lañ. te sëy bi bañ koy takk man fekkeewu ma. te aw ma doole bu may xeexee parce que lu ma wax mooy que ni jëkkër ji dafa nekk koo xamante ne dafa gëm affaire affaire maaman yi yaa may dégg boo te jamono nag man dama ñëw fii pour liggéey donte que même bu dee danga may wax dara ma lay conseil wala dama lay teg si yoon bu baax am na si yoo xamante ne du ma si dugg parce que dama bàyyi njaboot yaa may dégg. ok may gën a may gën a conseillé jigéen ñi nga xamante ne ni tey ñoom it dañuy nekk ak beneen góor ba pare beneen góor jóguwaat sa àll ba ñëw ne dama lay takk bàyyil sa xel góor boobu noonu parce que tey dañaa toll si jamono bi nga xamante ne ni tey góor ak jigéen bu ñu jote woon léegi léegi jëkkër ak jabar boo laajee jabar ji ne ko lan la la sa jëkkër def xamul lan la lay tontu boo laajee góor bi ne ko lan la la sa jabar def du la mun a tontu parce que loolu yëpp mu ngi daw si biir jamono bi parce que lu waral loolu mooy. tey man damay nekk ak benn xale bu jigéen kenn jóge si àll bi ñëw fekk ma nekk ak moom huit ans wala ma nekk ak moom cinq si biir cinq boobu ma nekk ak xale bu jigéen bi def nañ lu nekk si àdduna bi léegi nag keneen jóge fa la ñëw takk kooku noonu man damay venger wu parce que si jamono boobu lañ toll dama naan waa kii lu tax mu dem sa kële du ko bàyyee noonu léegi duma ko bàyyee noonu mooy lan damay dem si sëriñ parce que yow xam nga internet bi bëri na sëriñ yi falso yi bëri na def lu bon moo gën a yomb def lu baax jamono bii loolu la ñuy dund damay dem si benn sëriñ ne ko kii day damaa nekkoon ak moom mu wor ma waaye dama bëgg ne tey si biir sëyam bu mu nekk si jàmm yaa may dégg bu baax léegi nag loolu day am si biir góor ñi parce que man loolu gis naa ko si sama ñaari xarit yoo xamante ne ni dogoo ah dogoon naa ak ñoom Espagne fii yaa ngi dégg te seen soxna yi wallaahi ba wallaahi lazi seen soxna yi ba léegi ñu ngi toog amuñu jëkkër parce que dañaa tas ak seeni soxna. yaa ngi dégg ñu ne seeni soxna su neexee suñu borom beneen góor dootu la takk te si loolu la ñuy dox dem woo sëriñ ne ko dama bëgg kii bu mu am jàmm te bu mu nekk ak beneen góor góor façon bu nekk dina ñëw si yow sa jëkkër dina ñëw ku dul sa jëkkër dina ñëw waaye ñaari fan ngay nekk ak moom ngeen tas te buñ la laajoon lu tax ngeen tas doo ko xam loolu mooy jikkoy góor ñi tollu jamono bu ñu toll nii damay gis tey nga yow nga nekk borom jëkkër nga romb ma si biir Europe bi nga neex ma trop ma laaj la sa tur loo tudd waa maa ngi tudd faatu maa ngi tudd ma ne la loo sant nga ne ma nangam ma ne la baax na dinaa fexe yow ba yow jigéen boobu noonu tey yaa ngi dégg ma fexe yow ba tas sa sëy ma nekk ak yow yaa may dégg te loolu mu ngi daw ñun suñu Espagne fii nii da ngay gis jigéen bu am jëkkër ba pare am far jigéen boo xamante ne mi ngi nekk ak jëkkëram te du liggéey wallahi lazi day nekk ak ay xale yu góor weer bu dee ñu leen di jox three hundred lu ma lay wax ni bu dee espagnol yi ñu may dégg nañ bàyyi nañ dinañ dinañ ton dinañ tontu si samay kàddu yaa ngi dégg te yow góor bi leer na la ni yow jigéen boobu noonu dafa am jëkkër waaye da nga ñëw nga xam ni jigéen boobu noonu tey amul kayit wala mi ngi nekk ak jëkkër ji mais dund bu muy dund ak jëkkër ji neexul yow nga ñëw proposé ko xaalis ne ko weer bu dee yaa ngi dégg dama lay fay 300 euros ngay ñëw sama néeg chaque semaine danga nga fay ñëw par benn yoon nga fay ñëw te yaa ngi am jëkkër. li ma lay wax ni billaahi dama koy waat si yàlla bu dee amul yàlla naa torox. ay jigéen yoo xamante ne ay jigéen yoo xamante ne ni dañaa nekk ak seeni jëkkër ba pare nag am ñeneen góor yoo xamante ne si suuf lañ nekk seen jëkkër yi bu ñu xëyee dem liggéeyi ñu woo ku góor ki ku góor ki ñëw si kër gi def ak ñoom lu mu bëgg ba pare jaar noonu dem ñibbi wala ku jigéen ki mooy wàcc dem fa def def lu muy def léegi nag bu ko defee nag jàmm faa bu ñëwee da ngay gis ni góor bi danaan ko yow doo nekk si jàmm dinaa fexe ba tas sa sëy mënuñoo am jigéen ju amul jëkkër. bëri na jigéen waaye góor ñu jamono bu ñu toll nii dañaa bon bon boo xamante ne ni tegatuñu seen bët ci xale jigéen yi parce que xale jigéen yi nga xamante ne dañaa juddoo Europe fii nii tey la ñuy la ñuy soxla ak xale ak ki nga xamante ne dafa jóge Afrique ñëw sëy si bokkuñu lu ñuy dund xale bu jigéen bi juddoo fii dafa mel ni comme tubaab tubaab mun na nekk ak farom. cinq waaw. xaara tout second kii fay dem mu ne xaara mu tëj mu tëj mu dem. sis Hello, sis. And how do you pronounce your name? Tell me how to pronounce it. will, do English video, inshallah, soon on my other page. Inshallah. Did not, did not, kay kii kay mu pay ñëw dem sax waaw waaye wan ngaa ñëwaat okay you want to say something before you go but we still do English video on my other page. yeah we will do English video on your other page. Mm -hmm. okay. I'm waiting. Uh, I'm now at the hospital. I'm waiting the doctor to come in. Oh. Okay, we talk later, yeah? Uh, be in the live. We talk later. People will follow you, inshallah. Inshallah. Thank okay, you, send you my other page as well, and then you can follow me there. Okay. Okay, sis. Thank you. Good luck. You'll be fine. Mm. Hello. Eh, dama ñëwaat billaay amee because kii history bi anyway ah, dafa saat bem uppa waaye moom benn la xam naa si one million for very sure man mi am naa ay xarit yi somalien yi keroog ki ma àndaloon noo rek bu maa génn ba naan too beautiful single moola di caaxaan mm-hmm. biñ ko takka xale bu ndaw la maanaam man ak moom ñoo ñëwandoo jaamane fii because time bu ma ko suma doom bi ma post noonu ba nga naan ma ndax kii suma doom la ak taawam bi ñoom ñaar tamit ay morom lañ soo jëkkëram ñoom waa Eritrea lañu understand nga moo ko fi indi xamul dara xamul suuf amul kaw jëkkëram bi dina cees guddi dina cees bëkkeet understand nga te xale bu jigéen bi boo seetee si vidéo bi ma ànd ak moom samay la kii am na ñetti doom doo ko believe understand nga foofu dem toog si am li may dellu si rek mooy kii na taraay mu muñ mu gëm yàlla mu xam ne def na loo xamante ne ni jigéen ñu bari duñ ko dee def because wan na góor bi ne su nekkee ne si man si gannaaw rek te bugguma ko te duma def lu ma yàlla uh, uh, tere man cuus naa yàlla na xam ne ne li ko ñëw fekk si moo uppalu ko li mbaay loolu am very sure because me man dama believe on that understand cause fii yàlla rek moo fi ne dëgg nag il faut nga def dara yàlla fekk si la fa waaye moom def na dara ba pare because won na ko ne déedéet duma def lu bon lii suma diine daf ma ko tere te dama bili suma diine. ma ne su dul mbiri yàlla sax am na ñoo xam ne ñemewuñ ko wala jos dañ foog ne dafa salte wala something like this suma maas yi man suma maas yi loolu rek moo gën a tax sax defuma ko dëgg la yàlla xaaye na ko waa nekku ne lu yàlla xaaye yëpp laa dee bàyyi maa ngi ni maa ngi ni muuruxuma te yàlla buggul loolu mu ngi noonu di seen def man ñemewuma koo def ba pare also dama xalaat ne dafa salte or hmm. something te loolu hmm. daf dee joxe feebar su fekkee nit ki mu ngi jaabante si ñaari bën bën yi exactly su neexee si benn bën bën bi si boobu rek la war a xem su fekkee ne si bën bën bi si gannaaw la ne su fa su ko génnee dugal ko ci kanam feebar boo xam ne la lay indil bactérie bi nekk si gannaaw bactérie boobu noonu yëpp lay dugal ci kanam mu ngi noonu te loolu góor ñu bëri xamuñ ko fa ñuy dugal si kannaaw si gannaaw fu ne ñu dugal rek parce que góor ñu bëri respectuñ jigéen duñ risaay sax yaramu jigéen loo war a def nooy nooy oytoo pour jigéen bi am wér gu yaram seen yoon néew si ñoom nañ seen bopp rek daal second thing lu ma bëgg a tudde because dafa am point yu bëri biñ ko waxee daf ma kii trop te dama si bugga a sànni suma kaddu because man aw ma hmm. problème di wax yu mel nii oo di nekk in a life like this because lii laa di support anyway so second thing mooy li mu wax ne góor yi góor yi nga xam ne ñoom ñoo dee bëgg ñu jongal jigéen ñi at the end ñoom jigéen ñi ñu jongal dañ leen a buli yaa. waaw second first thing mooy ñoom. dañu dog lu lay luy tax jigéen boobu teel a satisfy moo nekk sa clitoris bi gisuloo nga am nuñ koy waxee yëg-yëgi kaw si kaw yi kaw yi anyway man du ma mën a use sa woot yi ami soo dama am pour wax direct am sorry you know yëg-yëgi bànneexi clitoris di feeling you feel when someone nga nekk intime ñu laal sa clitoris foofu jigéen bu ñu dogut da am orgasme bala ngaa door even nga am clitoris si vagina moo nekk su la góor bi pénétrété understand nga soo léegi yow wax ma jigéen boo xamante ne nii yow dañ la leelli ba nga set am na ñu ñu leelli setuñu widde because am na am na jongali hospital am jongali suñu maam yi ñu la dee xëcc yóbbu si àll ñu di la dog xamuñu fu ñoo dog ak fu ñoo bàyyi mel ni ñoo duma leen mun a jox tur sa because anything nga wax ñu ne da nga réew waaye ku nekk fi xam nga ne lii is not normal ba pare pour man lii dafa feebar naka ngay téye nit xale nga ubbi ñaari tànkam yi ne loo xam ne yàlla moo ko binda ngay dem di dog first of all ah. ma hmm? léegi nag jànga xam nga lu ma si dee gën a jaaxal ah. yeneen góor ñi feebar ñi nga xam ne dañuy wax naan wata baar ñun ñun tam xaraf nañ ñoom dañu xaraf ñoom ñoom tamit naa ko ñu der der ñoom ñoom der nañ leen dogal ba pare kay man even tubaab bi am nañu xaraf xam na lu tax. waaw ñoom dañuy man dinaa leen wax lu tax ñu xaraf ñeena moo nekk foo xawt bi der boobu noonu di wàcce di ñëw. bu hmm. njëkk ñoom soo gisee ñu xaraf at leen even fii tubaab bi is because of hygienic. waaw daf dee baax si góor daf dee setal góor góor. comme ni boo sebenee seben yi góor. aha seben yi der bi wàccaat fa. loolu bu fa tilim bi dajaloo am na ñoo xam ne sax daf daan téyewante seen der ba dañ dee dem si docteur bi yenn saa yi mu wante bu njëkk duñ mun a raxas ñu war a dog der bi te afta dañu laa dogaare yow ku góor ki second thing is dama bugg a dellu si jigéen ba pare ma door a wax si góor ñu stupid naan ñu dog pour nga ñoom ñu xam ñoom it luy seen problème anyway so dañ ko dee wax si vidéo naan xanaa konoon ñun ñu dog xanaa konoon ñun ñuñ dog duñ yëg dara maa si sooti jàmme wax na ko live si live waaye ñoom ñoom xam nga ñoom li ñoo yëg déglu ma moo tax ñu a jigéen ami moo tax ñu bugg a jigéen te ñu mel noonu ñoom ñu ci gën a bëri ñi ah mooy ñi nga xamante ne ñi ku mel ni man du leen jël ku mel ni yow du leen jël suñu nee jigéen suñu ko ngorosee sax ñu tuur la ko soo nitu ñu ñooñu ñu stupide ñooñu nga xamante ni xamuñu ñu noo flottaleeg jigéen xamuñu ñu noo demeeg jigéen understand ñooñu ñooñu pour ma duñu ko Cissé na nga def bala ma ma daanee dama nekk si lu léegi tey mu pare wa tapoté leen vidéo yi léegi tey ma pare jos jox ma minute góor yooyu da ngaa gis ne loolu moo tax ñoom foog ñu prétéré ñoom jigéen pour ñu am feeling góor yi ñu doguñ ñi ñi nga xam ne doguñ leen ah ñooñu ñooñu dañoo am another feeling daan yéen tam yéen tamit bu yaboo ngeen yëg loolu. soo leen ko xamutee. ah góor buñ dogul moo dee gën a am feeling moom tam. waaye yow of course ami of course. kon moo ta góori tubaab yu mel ni kay surtout ñoom ñi xarafut moo tax ñu mel nii kay bugg jigéen di bégal jigéen fii bàyyil ma ñii léegi nag comme que ñoom ñoo wax loolu ah, moo tax kay ñoom ñu bugg ay foxee jigéen yooyu xam naa seen yaram bi moo dee tàng ma de baalal ma moo tax most of them nekk si góor ñi ñi nga xam ne yàlla daf leen plus si loolu mu mbugal leen ñoom ñoo nekk one minute meeni because of yow skin bi war na protect sa kii bi sa sensibilisation bi understand nga pour nga gën a sensibiliser loolu sa kii baa ngi ci biti di kuru kuru kii rek ci sa tubéy bi ci sa boxa bi soo boo laalee jigéen sax yaa ngi fa understand nga loolu moo tax ñooñu duñ dee satisfy jigéen léegi nag delluwaat ci jigéen bu ñu xarafal bi ba ñu naan ko yow yaa ngi mel ni si ñeena jigéen ñi du ñëpp yow yaa ngi mel ni animal si lal bi o oh, néew néew sorry because of dañu la dog jigéen boobu da nga war a foy moom seet ba xam. lan moo nekk weaking point am bi doo ñëw rek nga baraj baraj yi dugal understand te jigéen ñi duñu benn ndeysaan dafa am ñoo xam ne dañoo nangu am ñoo xamante ne nag dañoo yeewu yàlla dimbali leen façon ngi góor yooyu duñ ko door ak yow sax soo loolu moo sonal jigéen ñooñu noonu ñu ñu xarafal ñeena ñi nga xam ne dañ dog seen yëpp nekkul ne dañu dañu dañu nekk néew de déedéet ñoom dañ leen ray ba pare because dañ leen génneel all the things lu ñu war a feel before understand nga so most of them they only have vaginal orgasms pour ñu stupid ñi ko xamuñ ñi ñoom laa nekk di waxal so amatuñu clitorical orgasmus understand ngeen loo rek la te mënuñu si dara because mooy li ñu wax rek bañ leen koo def ay xale lañ so ndeysaan mu ngi mel ni naturel rek si ñoom pare góor ñi nga xam ne dañoo bon ah mënuñu dara one minute ñu daanu so dañ dee bugg a am koo xamante ne ni dañ faa nekk di pénétrer rek seen bopp la ñu gëm gëmuñu. fonk ñu jigéen bi second thing mooy ki fi jógee sànq ki jëgëram nekk di vidéo kooku kooku bu mu am lu mu ragal si bëri na fi ñoo xamante ne ni they live here so many things vidéo bi te séddoo ko séddoo leen ko ay fu nekk ay Facebook ak TikTok ak WhatsApp ak fu ne ba mm-hmm. pare man sa man maa ngi am ku ma xam understand mm-hmm. kooku jëkkëram daf ko daan def moom it yu mel nii ba di defaale moom ak ay xaritam ak loolu ak loolu te loolu anytime buggur woon génn wax si problème am oo oh, buggur woon tas lu ñu ko defu rudu rendi ko ci sëy bi def nañ ko ko waaye am telling you early early or later this man dina la bitree ba yaboo yow ku jigéen ki man man la laa motiver lii gëmal yàlla nga génn nga bàyyi sëy bi su boobaa su génnewee vidéo yi yow li di nga gis li ka àddina di def first of all amul that right Europe la ñu nekk secondly xaaj la xaj boo xam ne nii yàlla du ko mës a woon yoonu yoonu yoonu yoon yoon bu baax man maa la wax loolu because nit kuy def lii. daf koy njëkk a boole nguur gi su génnee ci sëy bi daf koy boole nguur gi mu wax leen ne daf kii dafa amee ay vidéo am. vidéo yi bu génnee rek nga xam ne moom moo ko génnee. thank you thank you so bu mu ko nangu bu mu ko nangu because ku la ku la nekk di xaw ma nu koy waxee après ami soo deful li dinaa def li soo kooku xamal ne lu mu yàgg yàgg dangay bañ man loolu rek laa bañ damay bañ. yow dangay ngay da ngay rey waaye damay bañ soo jigéen bi na jóg mu fépp because kii ala kulli aali li ma wax tey nii notice leen ko dina génnee lii si mbedda bi soo jigéen bi na faxasu léegi te gëm yàlla ne ko non. yeneen góor ñu bonee noonu sax dañuy jël sa vidéo yi di ko jaay ñeme nañ ko fekk ñu ngi sëy ak ñu di ko jaay di ko jaay you know yeneen nit ñi nit ñi koy lifin bëgguma ak tur yi yeneen website yi koy wane noonu. waaw ñeme nañ ko ñeme nañ koo jaay foofu noonu. te fekk ñu ngi seeg yow boo waxee ñu naan la sa kanam bi nekk foo nangam nangam. Mm-hmm. non neeva bu kenn di nangu sax man doo seeg man di ma vidéo. amuloo man tamit de du ma ko nangu xalaatuma ko sax. du ko nangu doo ma def loolu ma bëggut. xanaa man sa baa man nii live ma nekk ah. suma jëkkër nga nekk sa nga nekk suma jëkkër ma nekk sa jabar nga di ma xool ma di la xool ngay vidéo looy vidéo ñu ngi nii kay. neeva neeva soo jigéen bi daal lu ma ko advice mooy am sone du ñàkk na mu nekk wala ki ko doon conseil nekk fi. na ko ne ñaan naa ko bu mu ko waxati muñ may mu ko waxati na muñ. waaw atténal xale nga ñëwaat miitool nga ñëwaat jànga. yaa ok. waaw atténal ko nga ñëwaat. thank you guys tapote leen ngeen seedoo vidéo bi mu héeg. allo broda broda yow dañ dama nii sama si mel ni yow nga ñëw fii nii di xeex lii ay réeli apusidi loo di I was very I was very ashamed of myself to mm-hmm. call myself a Gambian that fateful day, mm-hmm. I was very ashamed. to call myself a Gambian, and for that matter, why? mm honorable, a member of parliament, a female for that matter. Mm-hmm. Um, female, jigéen ci boppam, en tant que jigéen, ñu ne ñoom dañoo delloo pour ñu repel that law of enacted on 2015 FGM. Uh, ñoom ñu ne they in support pour ñu repel ko. I was ashamed. I cried bitterly. ñu nanguwaat FGM. waaw Gambia Gambia si boppam our honorable members Fatou K Jawara Memuna Cissé and the eh, eh, eh, and jigéen bi waa UDP seen seen boobu ak even their member of parliament koo xam ne from Badibu centre Badibu kooku moom moo taxaw pour affaire FGM pour ñu repelaat ko. so man maa bugg a nekk membre of parlement ku bugg a nekk membre of nooy def waxal leen ma ko ma ñibbi. membre of parlement sa sa sa gox moo la mën a yónni pour nga nekk penc roobu réew bi fu mu nekk dafa romba fu mu nekk ñoom ñoo fa nekk ba next five years now it's a big question mark in the Gambia danaa dem incha dana fekk suma gune yi dem nañ university kële dem si ami bi ma firi danaa ñëw daan suma suma waa area jigéen ñi ñëpp nañ ma votal ma ñëw xeexal jigéen ñi. it's not a joke. right now Gambia that is the sub food uh, sub uh uh, uh, uh, the soup the hot soup that is containing about FGM in Gambia dañ ko bëgg a jëf affaire yi di ko waa yes diine muslim julli daf ko war a def ak you can hamut you know and we all know that this is not Islam it's about But people come I mean, subhanallah. Wow, du du ne yalla faale wu ko de but it's like yalla du la mere soo ko defu te ñoom faale wuñ yalla loolu laa bëgg a wax yeneen yu baax yi ñu war def yëpp te yalla loo ko ne ko def. And then about this Imam Fati again and I'm here again Imam Fati again moo nekk di lifin because Gambia den den prosecute kenn ñu tëj ko moo mu de uti fonds pour ñu pour mu bail kooku noonu because the court den uh, def ne ñu ko def noonu ñu fay ku nekk fifteen thousand mm-hmm. moom mu def uti funds pour mu génnee ñooñu minimum he is going to support he is going to support the FGM or else even the the threatening Dr. Isatou Touré because mo Monica Gambo trap in Gambia wow. for anti-corruption uh, uh, this FGM fight so Koku life member of parliament si nañ ko jël foofu yóbbu ko si nekk député yi pour wax ne naka dañuy repeler pour change loi bi pour ko because it's not mutilation that they have mu what which mutilation this is violation of fundamental people guys stop ko bu ko guys change law bi na ko guys stop that's why i said national human rights commission of the gambia taxaw ne uh, di di di youth parliament wax neen and then um, Eh, eh, eh, naka la waa sa civil society tam amoon nañ press conference and then even people went and visit this imam again moom moo tam ne woon bu kenn déglu imam Fatty because imam Fatty I wish kenn mu dem suma page na ko déglu gi nga ñu bu mu dee doole si christians yi benn ko tontu ba saasial te benn tey ñëw pour tontu waaw moom xam na nu ko laabe boobu wax te ñoom xamante neen moo tam waaw xoolal nu mu doon def christian yi rek xoolal nu mu leen doon wax rek waaye du ko ñaare laat du ko ñaare dama suma page bi laabe bu ko tontu noonu kooku daf ko woo depuis history depuis 2008 mi ne ko you are not you not a honest la te dama suma page di nga gis reply boobu noonu live depuis boobu ba léegi benn tey waxtu dara si christian yi. ma ne na am na yenn imaam yoo xam ne moom bu temps bu waxee christian yi time boobu sotti jàmme dafa la ko dégg imaam yu dégg yu déggu ñu ngi biir Gambia imaam yo xam ne ñu am mm. diine ñu ngi fa ñoom imaam Babalu ñu ngi fa ñoom imaam Cerno Ka ñu fa ñoo xam ne ne ñoo xam ne ne am neen diine bu ñoo suma mbokk lañ sax ñoo suma mbokk yaay lañ si kaka la la suma yaay jógee ñoo suma mbokk yaay moo tax dam dee wax this fundamentalist and bigotry has no space in a Gambian society and then foog naa foofu leen ko bëgg a yóbbu ni gis nit ñi dañ war a bàyyi naxante bi gis nga filming FGM is not about even filming I don't talk about the feeling aspect man I'm talking the consequences of that individual kooku su demee léebo how he is going to she is suffer am na yéen yoo xam ne dafa am pain yéen da nga xam seen private party dañoo funki dañoo dañoo feebar you know these are the things that we need. su dul loolu sax broda xam nga lu ñu war a seet su fekkoon ne jigéen bi su ko defee private party am du am benn problème fay xam doom du am benn problème yépp correct sax ba tey li ñu war a seet mooy daf fag ne jigéen bi ñu ngi koy dagg mu ngi si xam métit benn ñaar léegi su ko góor gi takkee. ndax góor gi danay app lool góor gi fa takk di ko treat back ci biir nii man dam dee wax nii et puis ñuy wax nii am in support of FGM la ten dañoom ba yom façon jigéen la gaa dee uti dañoo uti koo xam ne demut exactly ma ne man xam naa si dara man saa nekk ñoom ñu ñëw naan ma ma laa bëgg a takk parce que xolof nga xarafoo te jigéen bu xarafut moo dàq live góori soose yi naa fekk nii ñoom ñu bëri ñoo may bind di ma ko gis nga moo tax gis nga Gambia la moo ñu yaaxa ñu Gambia te dam ko waxaat kon ko ñu ne comme rek. jàng na comme Cissé jàng na alxuraan wala Cissé xam na diine bi rek nu mu wax rek dëgg la. people don't justify people don't countersign pour defend kooku nu mu defend boppam. Mhm. ñaata scholars yow nga ne kooku rek mu am de ñaata ne yow Saudi mooy Saudi da gis ni ñi xarafal foofu da nga mhm. lifino da nga dem ko dañ laa kite kaso foofu foofu la diine lifine gis nga Gambie bi mu war doguma la yàlla bu la yàlla dog waaye nga jigéeni Somalia bi génn ci vidéo bi nii léegi lu dug dugg baax na gi nga moom bu ma ko laajee yéen lu tax du ngeen di sëy ak suñ góor ñi parce que suñ góor ñi yéen yi fa ñuy bëgg a xam jigéen jabari Somalia waaye du di nangu mu ne ma parce que ñun ñu bëri fa ñuy ragal ne yéen seen góor ñi liñ xamee ñun duñ ko mën a xàttan fay rëy loolu mooy ne ñoom seen góor ñi seen góor yaa gi fa tuuti moo tax ñu di leen dagg di leen ñaw dagg leen ba pare caw leen ba mu des ban bën bu ndaw ndax góor yaagu tuuti ga mën a dugg te ñun suñ góor ñi xamee góor yaagu tuutee noonu bëriwut loolu mooy dëgg gi kon ñun lu ñu xarafalee jigéen ñi. moo tax dam le wax all women taxaw leen ngeen against ñoo tax ñuy seen jigéen ñu nekk noonu si parlement di wax ne gender gender gender gender xamul benn gender they are all fake. those parliamentarians of women in the inside that parliament they are all fake. They are all fake parce que ñoom ñoo di wax affaire FGM pour ñu isiwaati FGM yow those female female National Assembly members you honourable I call them dishonourable because they are dishonest. moo I count on people I count on the Gambia children let them go out on the street crying. jigéen ñi ñu ngi nekk di wane pour loolu ñu ñëwaat back. am not parce que am na a protect seen bopp. moo tax ma ne askan bi all women in the Gambia everybody should join the civil society jigéen ñi yëpp génn a cry on the street. you them to the government or to write a petition to the National Assembly. And then if the National Assembly you to the international organizations or international bodies, EU, um, a, everybody, because it's international violation of human rights. That is the truth. man sax dinaa email kon dinaa email man it organisation yi lu ma man we have to fight because at the end of the day our children because soo gisee sa yeneen xale sa amoon sa foog na balaa ñooy dem uti xaalis pour génne ko pour béel ko xaalis boobu ñu dem dina ko sanitary pads to give those people about their hygiene people are doing lot of things uh, uh, for, these uh, women and girls hygiene education all those of people I didn't want to buy the te am na jigéen yoo xam ne ñu ngi sëy am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi sëy sax gannaaw bu ñu leen xarafale ba pare ñuy sëy seen jëkkër yi ñu ngi leen fa sànni dem takk beneen ñaareel wala di leen fa sànni di xam jànq jigéen ñoo ñu ngi xamee doom yi suñ xañee duñ duñ reer lal bu baax sax xamuñ ko te Imaam Faati mënoon naa jël xaalis boobu dimbalee ko jigéen ñooñu su fekkee ndimbale ko jóg ami olof man dama moo tax man ma ne bés boobu dama bina Facebook ma ne jigéen ñooñu ñu nga fees dell tànje tànje rek ñu ngi ko fees dell gis nga na ma ne dëkk ñoom Imaam Faati yàlla daf ma may yàlla daf ma may yàlla daf ma may dam dam lee fàttali ko dara moo tax benn vidéo benn tee maa ngi ko amee ma ne su dof dof le ba ma génnaatee fu mu doon jaamoo yaajame bu yaajame du loon tuur ndox ba ba mu sega foofu noonu di jël ndoxaa bi léegi tee ma andi ko waat bu wax nga ko lifin laa dem jiyaati yees ma jot ko foofu noonu pour wax ne ne how he was misleading the people pour nekkoon yaaya jame foofu noon nee na waante dëgg ay no baro la baro la yab baro la yab ñoom ñëpp baro lañ yab ne ko comme baro la non ne ko su baro parce que baro moo ko space boobu noonu boro ma ko jow space boobu noonu. moom laa bi ko boro human rights lay xeex moo tax dafa of people te Gambia is very emotional gis nga fii kenn gënu ta xam ni diine ah fii kenn gënu ta xam nit ki nga ne ka sa diine ak li nga nga bàyyi misleading yow gis nga nit am na ñu ka sa gannaaw rek waaye bugg nga isi koyos bugg nga isi problème all the time foog naa dem war a moytu dem war génn si yooyu noonu. pour ñu a développé baragum nangu loolu mu ñëwaat baak si si Gambie de. gis nga développement xam nga non xam nga lii xam nga lii. baro munu si man ma ne baro nekk député ñoo am di lëfin nekk député ñoo am yooyu noonu pour change ne nekkul baro because baro am na yeneen luwaa yu moo génn sax ñu daaxa ko si biti so these are the things so ñoom si seen boobu nu ngay d'accord ba lëfin coupé moo ta man is high time but ñu ñëpp génnee international everybody nga xam ne ñu baan kenn du leen joxaati dara ñu seet man nga du ma leen gën a mérité suñu ne tubaab bi nu mu wax west bi lii leen bëgg ñu def ñu tëj suñu culture ma ne yéen bi te yéen suñu la joxutee visa si west bi ngeen nekk di wax la moo tax joxoon visa lii ngeen yàkkam di bi ñoom seen doom ñu fi nekk sax ñoom seen doom sax dañ ko nekk di def seen fi nekk dañ ko nekk di ko ni wante dëgg te dee gis nga Gambie bi dañ bëgg a ñoom ñu fi nekk sax di woo am nañu ñoo ñëpp leen def FGM su ñibbee Gambie wala ko dee def kay nguur gi yégee ñu am problème exactly that is the la moo duñ ko taxaw di wax mata dan soo yi moom nguur gi dina yëg bosam nguuri jaamu ne dañ ko yëg no non these are the things boo xam ne ñun ñun dem war a moytuwaat suñu bopp yu baax a baax ba pare su nekkee yow nga ne yu west bi west bi baaxul la moo tax ngay fight pour ñëw to to western country la moo tax toggaloo foofu noonu wala nga des arab country la moo tax defuloo foofu noonu gis nga nen wax diggante dee gis nga Gambia bi Gambia bi den bo den body affaire yi um, how to call it mislead people ba pare Gambia bi dégg bugut wax dëgga moom na li fi def fu ko fu foo xam ne intérêt sax mu fa rek foofu dama wax boo du wa intérêt si uh, somebody else. We, I think so. We should. This is from those things. We want to graduate from that. I think so. We should talk about something good ahead of our young people, of our girls and children. foog naa ñu wax loolu moo gën. ñoom ñu ñu traumatisé xale yi rek loolu la ñuy focus di mentionné loolu. and secondly yaa ngay gis. loolu dafa war a gis basic needs. is is part of man dam ne wax fonds yu xaalis yu dem di dem baatare ma yu kenn woo mu ne bu baatare am na yoo xam ne xaalis yooyu yaaxa noonu di ko jëyee su ko defee am na kenn koo xam ne mu fële ne amut I think so we have to help as much we can of social especially of the girl education Mutu Mane, the African child, Mangi John Bena point about the African child. These are, these are the things that we should look at and how to build up capacity building for children, for young people. At least, am na yeneen yoo ne xale yoo xam ne léegi ñu ko jëlee si boobu ñu nekk si Serekunda bi ñu ngi try by all means like local governments mu ngi currently dem na America sa pour benn meeting local dafa jël benn project bu mu amee 21 years 2021 fight for girls dafa am yenn pour wax leen de about your hygiene he will buy sanitary pads from Banjul to Koina and help as a young girl 21 years old in 2021 ba léegi tey mu ngi continue every year dafa def project about 21 days capacity building ak yooyu noonu very talented young girl. wala even su fekkee ne ñoom ñu ngi ñu ngi wax sax ah ah ñu wax lu ñuy jëriñ waaye buñ promo lu ñuy sonal yaa ngi écho foog naa da nga am call brother tapote leen vidéo bi su fekkee ne ngeen di nelaw na ngeen waxala ma dagg ko dama war a def Facebook sax tamit parce que gëj naa def Facebook soo dama war a def Facebook live lu pare dafa am sama benn sista bu ñu def live allo Malick allo na ngeen def yéen ñi seetaan yëpp so guys Gàmbi xaraf bi nga xam ne fañ ko war a dakkal moom la xeex pour mu continuer parce que góor yi nga xam ne ñoom ñooy bugg toroxal jigéen ak toromataay jigéen ak métital jigéen pour góor bi su jigéen ji su magee ñu continuer di ko métital jigéen ji nangu bi ko xas na ba miin métit góor ñoo ñoon ñoo ne ci gannaaw xarafal jigéen ak jigéen ji nga xam ne xalaat nañ ne bu xarafee du yég dara te du ñëpp du jigéen ñi xaraf ñëpp yoo du yég dara ñenn seen xaraf gi fa tax ba duñ doyal góor xam na jigéen ñu xaraf ñoo xam ne seen xaraf gi fa tax ba duñ doyal góor waaye jigéen ñu xaraf ñu bari surtout xaraf bu bon bi ñuy def di ñaw di tëj di fat te loolu daf dee xam gàmbi xam na ko ko bind fii si comment bi sax li jigéeni naar yi wax ne loolu la dund noonu su fekkee ne mun leen a tàppate vidéo mën naa koo dagg ma ñëwaat bala ma dem wax Facebook si wolof danaa fa gis ñoo xam ne ñu ngi ñu ngi tàppatee ñu ngi interested because su ngeen tapoter mooy leen you know interested du ne yéen ñu seetaan yëpp ngeen a busy wala ngeen a amul ay baaraam wala nangam that's not possible nu ngeen def ba mën a dugg TikTok noonu ngeen you know seen baaraam yi mën ngeen koy use ngeen wane ne li may wax yéen a ngi koy déglu ba su may wax ngeen di ma seetaan mais ni bëggul ne dégg wala just I just don't know like I just don't know why ngeen di def loolu so du ma mën a nekk di continuer di wax kon su fekkee ñu may seetaan is just like ay niw lay waxal or something like this léegi <clears throat> su fekkee ne ñun jigéeni askan bi ñu ngi war a jóg dimbale gune yi ne ci ker mango gi te xamuñ kàddu xàq ji ñun lay dal bi ko ñun xam nañ internet ku waxutit mën ngaa gis keneen kuy wax nga bës seddoo donné dimbale vidéo bi vidéo bi dem su ko defee soo gisee ku post tamit buy Facebook la wala Twitter nga mën ngaa bës like seddoo dimbale post boobu ba tey yaa ngi dimbale gune yi ku ne xam na ne Afrique gune yi dóor bu bëri buñ leen di dóor aka di leen làmbatu di leen abbi si foofu wala di leen xarafal surtout gune gu jigéen wala jos tuutil gune in général góor ak jigéen ku ne xam na ne loolu moo waral suñ toroma bi moo waral suñ sëy yu bon yi moo waral suñ soxot gi suñ naqadi deret gi moo waral nit ñi tuxa ka naanaka ka naqadi deret aka fenaka njaaloo ka jikko yu bon yëpp nit ñi yaree doom moo ko waral xam nga loolu ku ko xamut ku ne wéeroo ndax du ku xamul ne ñun Afrique ni ñuy yaree doom moo war a suñ jikko yu bon yeeg suñ naqadi deret geeg suñu xaalkare geeg nit ñi téye paaka di la jam ci mbedd mi di la agressé ci ngir mobile lu ñàkk fayda Afrique léegi pour xeexoo fas nokki nelaw nokki sax mënoo ko surtout boo dëkkee ci ay town town boo mënti dëkk Afrique across Afrique tout town boo mënti dëkk sutu nga xam kër gu baax wala oto wala anything photo leen ndig soxoot geeg nit ñi lay jàmpaaka ci ngelaw mel ni yow duhoo dara jos bi ko xam nga mu bàyyi wala dara exactly sa bitig boo ko xamee sa oto boo ko gaaree sax ñu toj ko loolu yëpp du ne ñàkk moo tax de soxot fa ci bokk soxot gi fu mu jógee nit ñi yar yar gune di métital gune yi muy góor wala jigéen métital gune man loolu lay xeex métital gune feek ñu ngi koy def duñ mës a xam jàmm ñun Afrique Chinese yi sax xam nañ ne loolu mooy suñ problème ñu xam nañ ko waaye bi ko dañ tuus soxor moo tax duñ ko nangu ndax suñ ko nangoon fañ ciy def dara pour mu dakk doo wax ne rek waa ok xam nañ ko anden nga nangu ko anden yoo lay whatever mooy ne nanguwoo ko ba tey wala kon ngaa bañ Afrique ngaa bañ ñun buggoo ñun ñu xam jàmm xam nañ ko ok léegi luñ siy def seetaan no come on guys na juróom-ñaar yëpp ñu ngi jàng nu ñuy defee pour dimbale seen askan mbooleem xam-xam bu baax boo xam nga indi ko kële indi xam bu baax ñu boolante yëpp ndànk-ndànk bu ko xeeb ndànk-ndànk ñuy wax xam-xam yu baax yi ndànk-ndànk di ko di ko promouvoir xam-xam yu baax yi ndànk-ndànk mu dugg si ñun ndànk-ndànk waaye ñun xam-xam bu bon la ñuy promouvoir indi ko si ñun mbiri góor jigéen ak mbiri mandeek mbiri saagande ak mbiri def taati nee nag yooyu dinañ ko promouvoir suñ gisee façon yu vidéo yooyu dinañ ko promouvoir ba pare di jëw borom di xas borom di tuutil borom ba pare di promouvoir loolu fii la Cheikh Cissé ñëw di wax waxi xajam yi di def manière xajam yi ngeen di ko promote bañ jàpp ko ngeen ñëw di ko ree naan ko ne suñ la jàppee nga dee ak suñ la gisee nga dee ya yaa bon ak te yéen ñi ko doon promote yéen ñii yéen a ko def léegi ennemi yéen ñii te su ngeen gisee keneen kuy def loo xam ne dafa opposite from Cheikh ngeen seetaan ko mel ni kooku mooy seen ennemi lu muy def mooy seen ennemi seen yuur gi mooy seen ennemi wax naa leen ko depuis day one man xam naa askan bi li ko dal moo tax seen yëfi dof yi du du yegg si man su ngeen bëggee ma taxaw di tàncante yéen ak a saagante de yéen day du ngeen may jaral lool parce que man maa xam ne askan bi fa feebar feebar bi ko dal du caaxaan feebari trauma du caaxaan feebari ba nga doxee gune ñu di la dóor di la abuse di la def loo wata def luñ la wata def loolu du caaxaan waaye nag ndax da ngeen xam ne ñu bari ñu xam ne yéen